amoo jéeg tubarkàlla tëdd da nga ko war a préparer sa tëdd rek sa drap bu weex nga puudaroo talk doo puudaroo puudar bu ñuul puudaroo bu weex bi talk ngay def ko liir sa bët ba mu saf sàpp def crayon bleu de nii def lipo lèvre ah, ba pare ni ngay waxee neex na ma ci mm, jéegu jéegu une moo jar a laaj mooy question bi mais bëgg naa jéeg bu dotom guddi jéeg day dotom yaa ngi yéen ñu bëri mais comme yi nañ déglu bu ñu appliqué appliqué yii kaay ma da ma ne appliqué li nga xam ne dafa am tànk ginnaaw li nga xam ne tubarkàll <laughs> appliqué dooto arrière tubarkàll <laughs> mais kontaan naa trop merci beaucoup chérie suba la àjjuma hmm. jeudi da ngay xoos tanké après bo mu set. ah def pédicure def manucure. ah vendredi bu li ngay def yépp aljuma ak samedi wax ko wax ko dégg nga wa waaw. suy sango hmm. nga jël ci ba gëna neex wis ko ca ndox ba. Ah. ndax fu mu taxaw du gilli sax yalla gëna gawa gaaw a nangu ñaari raakaya. waaw. Ah. tàngoor yooyu da ciy baax nag. waa lay këppal jërëjëf caat. waaw ba ci kanam. <laughs> ku daan. man kay moom man kay a daan sax waaye bi bi xale bi ñëwee damaa xaw a betteelu noonu nañu leen maa mën. tuba non non baax da nga koo sagal da koo sagal bul bul wane ne mukk yaa koy daan tubarkàlla. oui. dama koo bett. ma ko nii rek mu yor a tartar yi rek ma gis xale ba rek daal di daan. faanaa la <laughs> pour moom xeex la nekk te yëf yëf waaye mu la daal. ñu jàpp yàlla rek. xam ne ñun daal est-ce que xam doogu ma la mais jonge nga jonge jeeg jeeg dëgg noonu la xam nga yoon ndeysaan doo daane daaneeloo sa jëkk rek day daal doon defet ah tubarkal nga daal di mbartalu daal di suuf ca suuf xam nga man tam damaa xaw a nekk ab ab rek ci man lay kii amul benn problème mu xaw a nekk rek ab bébé rek. ndeysaan am benn problème fowukaay day oyof amul benn problème. noonu foo ko jëmalee mu jëm sa tubarkàlla loo ci bëgg mu defal la ko laa la